fi ñuy doore nag du fenn fu dul ci Aliou aliso Aliou Sow dañ ko daan gis ci plateau yi muy dal ci kaw sunko mais dafa mel ni discours bi dafa commencé changer man nag je me demande pourquoi discours bi war a mën a changer parce que nag nee nañ Diomaye day dem te sénégalais yi jàpp nañ ni Diomaye day falu xëy na loolu moo tax ñi ñi ñi ñi nga xamantene ñu ngi woon ci loo xamantene japp nañ ñu du dëgg ñu ngi bëgg changer mën nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. ci personnalité bi je pense que ni Ousmane Sonko est un garçon honnête. je pense que Ousmane Sonko euh, euh, euh, bëgg na Sénégal. comment ça. je pense que ni Ousmane Sonko limi muy xalaat ñu ci bari ci sénégalais mom lañ la ñu xalaat te lu ci bari moy li dëgg ndax dëkk bi yàgg na bi exister mu am ñu bari ñu fi jaar am ay gestion ay façon gestion yu fi tegoon façon gestion yooyu moo continuer ba léegi ba toll ci niveau de développement bi ñu nga c'est d'une bassesse inouïe réew doxul yàlla def ni ne daan nañ ko wax mais am na si koo xam ci gën a fës fël moom la ñu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 bëri ñoo ko déggandoo ñoo ko seetaanandoo moom nag nee na Ousmane Sonko ku yaru la nee na Ousmane Sonko mu sell mi ku baax la nee na Ousmane Sonko mi def gënu ko nee na Ousmane Sonko moo defar sunu Sénégal gii nee na Ousmane Sonko baax na fa bu baax yem maa yey dër damaa jaaxle joom mi nee na Ousmane Sonko moo gën si nit yi moo gën a baax moo defar Sénégal moo ubbi xel yi. Aliou Sow Ali xam est-ce que xàmmee ngeen Aliou mii di wax dem na ngeen xoolaat vidéo yu mu daan def ci Ousmane Sonko ñëpp a ngi tuub mais yéen dama bëgg ngeen am fulla bu doy ni bu leen nangu kenn dugg bu muy métti ñi bokkoon nañu bokk bu mu commencé neex ñu njortu ni dina neex ñu bëgg ñëw bu leen ko nangu bañ leen lank leen ba tëdd ci suuf bu kenn nangu waa Pastef bu muy métti ñi àndoon na ngeen continuer di ànd. ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di daal seen kaw bëgg a tuub changer discours am leen ful la bañ bu ñu ñëw bu leen ak accueillir kenn parce que loolu li muy wone mooy que gëmuñu seen bopp. bu fekkee nag gëm nga gëm ngeen ko man gëm leen ko man gëwuma ko c'est pas un homme honnête ku honnête da ngay constat ci li ngay wax da ngay wax doo xool lu neex ma sàmba doo xool lu ma demba moom nag da doon wax pour lu doon neex parti bële. léegi am na yaakaar ni parti bii mën na am dara mu ngi dëpp carte gi